salaamaaleykum àdduna wërngal këpp ñëpp nuyu nañ leen ziar leen ñaanal leen sàkku bu baax ngeen di nu ñaanal di am mbégte ak kontaan ci ànd ba ngeen ak ñun ci seen émission tegtal di wax ne seen bët suñ te jëm seen nopp suñ bànneexu làmmiñ seen taaxirlu waral suñ farlu tegtal du tay mukk du bàyyi mukk ci seeti leen koo xam ne que njëriñ leen ci séentu di ñaan yàlla ñu bokk gis ko ci tegtal ñëw na ci koo xam na que miin ngeen ko lool ci tegtal ñu min ko ci tegtal ndax ngëneel yi muy wane ci tegtal kookoo di kan Serigne Moustapha Ndiaye Alkarim Serigne Moustapha Ndiaye Alkarim yaa ngi ci Tektal TV sa télé yaa ngi sa émission Tektal looy nuyoog àdduna wërngal këpp bi lay seetaan. aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim wal asri inna al insana la fi xusrin illa alladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bi sabri alhamdulilahi rabbil alamin asalaamu aleykum wa rahmatullah Serigne Cheikh taalif noo ngi lay fay ab nuyoo te di la siyaare te di la balu xaq te di ko bal di nuyu tey siyaare tey jiital ci nuyoo bi ak siyaare bi nag santaat borom bi subhanahu wa taala julli ci waat ci Mustafa alayhi salaatu bu baax Cheikhuna alxadim xadimu rasul di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi fi toog tagaayub Cheikhuna alxadim yàlla sunu borom may ko fan gudd lool ak wér ba ay naalam ak ay yéenam lépp mottali ko ci barkeb Sëñ Touba noonu laa koy ñaanal cheikhuna wal wasilatina cheikh ahmadul muxtaar mbakke mu fi toog tàggaayab cheikh mouhamadul moustapha al karim nga xamante waxtu wu ne ni ma koy waxee ci moom la ñu tàmbalee ci moom la ñu tëjee di ko ñaanal bu baax te di ko siyaare ci dëkk maamam bu sell bii tey nga xamante bi ñu mooy sunu lépp ndax nun donte ay njare-njare lañ yoo xamante bi ñu sunu cosaan moo ñu dàqoon xëy nañu dellu njare waaye dëkk bii rek la nu am ngir ne fi la sunu lépp nekk ab dëkk bu dee ne fa nga ganee àdduna fa nga jànge fa lañ la yare say waajur fa lañ dëkk sa njaboot ñëpp a nga fa nga yàlla dafa la tawféex yi nga am fa makkaan moo xamante bi ne waxtu woo ñuy ëbbi sa kër dugg fa sa njaboot nekk fa foofa nga dëkk kon maa ngi siyaare bu baax sëriñ Ahmadou di ko ñaanal bu baax di waa dëkk bi yëpp rawatina waa Tuubaa gépp nag maa ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax a baax sama mbokki taalib yi fi dëkk yëpp di la fay am nuyoo bu baax Serigne Cheikh waaye di la dalal jàmm nag ci sa kër ndax yow kër gi sa kër la daara ji sa daara la yaag waa Tektal TV yëpp mm-hmm. di leen jaajëfal bu baax ci taxawaay bi liggéey bu rafet bi nga xamante bi ne nii ni ma koy waxe waxtu wu ne sa yéene ak sa bëgg ci lu jëme kanam doomu aadama yi jaral na la lu ne man de maa ngi seedeel sama borom mi nga xamante bi ne nii moo ma bind indi ma àdduna te moom ma fiy jëlee te du tàggu kenn te it wér na ma ne it dana jàkkaarloo ak moom bu ëllëgee bu ma faatoo jàkkaarloo goo xamante bi nii kenn mën na yow ñetteel ku dul ka ma seqaloon ak ay àdduna ci ay luñ doon seq man ak yow moo xam muy ay tooñ wala ay xéewal wala lu mën a doon ñu seq loola war a taxaw ci kanamu borom bi subhanahu wa taala mu attinu bu te it bu dee ne sama jëm may tax barsax bis penc ci am bis penc du am ndax tëpp ma kenn dara lu ma waaye def ci àdduna jégal naa la ko maa ngi sekkalu maa ngi jéggalu it keneen ku mën a doon waaye sëñ Cheikh maa ngi seedal nit ñi ne sa yéene ak sa bëgg benn bëgg-bëgg rek la hmm. man na maa seedal yàlla yit ne amul benn sëriñ boo xamante bi ne yaa ngi koy jàppale ci ay tàppale loolu mën naa yàlla rek laaj def seede ni ma koy faral di waxee bépp sëriñ boo wax bu mu doon sa xarit wala ngay ànd ak moom seq ak moom ab liggéey lu mu mën a doon ci dëgg ngay ànd ak moom lu mu mën a doon ci dëgg ngay ànd moom loolu moom mën naa koo seedeel yàlla mën naa ko seedeel doomu aadama yëpp te daf ci seede nag sama borom hmm. daf ci seede sama bàmmeel hmm. ndax man ku ma mu ku ma xam ci dëgg nga ma xamee yow mii sëñ Cheikh hmm. ba ñu xamante ak yow ak yow léegi mu def ab diir waaye mosoo maa gis ci benn jataay bañ heure boo ma gisee ci liggéey nga ma xamee ci liggéey nga ma gisee wala ñu tasee mus mus ci jàmm rek laa lay dégg macha allah man man noonu lay dundee mhm. awma ay gaaram place yu may toog awma ay xadara yu may toog ndakaaru la muy yaatu yaatu la muy rëy rëy dafa gunnaa fa daanaka juróom-ñetti at yu tegal euh, jëm fukki at waaye bu fii may wax ak yow su taaloon sama oto jëm sa kër mën naa la woo lu mat fukki yoon di la laaj fan laa jàdd ak nan laay tourné mënu mm, maa xam fenn mm. loolu mooy damaa amul jot mooy bëccëg gi maa ngi ci nit ñi guddi gi maa ngi maa ngi sama dara di mm. jaamu sama borom bañ naa ko ba ndakaaru moom daal jaamu yàlla la mu fa indi ak mm. liggéey génnuma ci loolu nag ko ci loolu rek laa nekk kon yow it loolu laa la xam ci loolu laa la xam ci nga nekk ma ànd ak yow ngir jëmmi sëriñ ngir jëmmi sunu borom ak faj aajo doomu aadama yëpp nag yàlla nañu sunu borom jëmale liggéey bi kanam donte nag ñi ngi sant yàlla bu baax a baax a baax nag sax nag wax dëgg mm. yàlla am ndax nit moom bu santul rek mi ngi xalab Mm-hmm. te it wax dëgg yàlla nag yàlla defal na lu jar sant nag mm-hmm. kon ñoo ngi sant suñu borom baax a baax a baax a baax di la sant jaarale cant gi nag yow nag wax dëgg yàlla jërëjëf jërëjëf kontaan nañ bu baax kontaan nañ bu baax jërëjëf mooy sëñ Moustapha Ndiaye Al Karim sas nañu mm-hmm. sas bu diis ndax euh, fi mu yóbbu moom a dëgg yàlla mooy dañ yokk suñu passif ci lu mu ci man di doon te wax dëgg yàlla li ma ci gën a neex mooy li ne ànduñoo kenn ci tappale te amul benn sëriñ boo xam ne que euh, dina ànd ak yow ci lu niroog tappale sa xam ma ko. Mhm. moo tax yéene laay demee. Mhm. yéene bi may demee nag ay par exemple damay bëgg lépp lu may dund rek ma mën ko justifier yow daal. ne mhm. lii lii la. ak lu mu ci man di doon rek. mu doon sutura ak defar. mooy li nu ëppal solo. Euh, liggéey bi nag dafa doon loo xam ne que lu ne ngi ci biir ku ne ngi ci biir. kon dañ ciy dem ba jeex rek. te xam ne euh, dëgg daal mooy mujj ak lu mu ci man di doon. kon yàlla na yàlla xeeb dolli. sëñ Moustapha Ndiaye di wax ne ku am Pastef la ci liggéey bi te farlu na ci te mi ngi koy teg ci yoon te loolu dina gën a leer ci biir bu baax a baax mais balaay boobu bindal bindal maire foofu bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit ba di neexul ki wax ci saal bi mu noppi Serigne Moustapha Ndiaye Alkarim bindal 77 524 23 24 77 524 23 24 wala nga def beneen bi 76 440 de 02 40 77 77 la 440 02 40 Serigne Moustapha Ndiaye Al Karim nekk ci Fass Mbao cité Mandela bu dee àjjuma la nag comme fii ñuy defee émission bi ci Touba jànnatu la nga fekk ko fi diis ko sa soxla lu mu ci mën mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi nga xam tëlewul dara te mën na lépp fi nga nekk ci jànnatu fan la nga xam ne àjjuma gi nit ki bu xëyee huit fekk si la fi fan la pour tegtal bi gën a leer man daal suñu cheikh waxtu wii xëy nag ay jamono yii fu nekk may woo sut nag fu mel ne kees mhm. dem naa ba nit defar këram ba mu njëkk mhm. mu ñëw ne ma sëñ bi caabi jaa ngi dama bëgg nga dimbale mi ngir yàlla wut ay bis yooyu nekk kees mhm. waaye daal nekk gu ma fenn furul Fass Mbaaw ak Touba fi la waxtu yu may wax ak yow foofu laa nekk léegi fii ñu defee émission bi ci fii nag ajjuma rek laa fi nekk ma leeral ko nit ñi ndax it nit ñi dañoo sonn fi ñu doon da gis koo xamante bi ne nii ndar lay nekk day jàpp ne Touba moo gën a jege ba mu taal otoom ñëw bis bu dul àjjuma mm. ñëw ci ex ci kër gi fekk fi waa kër gi ñu ne ko sëñ bi ñëw fi tey kon loolu maa ngi koy bàyyiloo xel nit ñi pour mu mm. leer leen ajjuma laa fi nekk ajjuma laa fi nekk tegtalal kër gi kër gi ku ñëwul sam bañ a laajte kër gu yomb xam la moom bu la neexee boo ñëwee ba ci hôpital ba ci mbedd bi yëm hôpital bi mm. ba tali bi yëm hôpital te jàkkaloo pale bi ñu ko kebe bi waaw nga jàdd mel na ku jëm ci hôpitalu janatu bi mm-hmm. dafa waxal benn mbedd. benn ñaar ñaar ñett. ñett ñeenteelu mbedd bi. ci sa càmmoñ sa càmmoñ. nga jàdd nga sa nga jàdd. ñeenteelu kër gi ci sa ndeyjoor. sa ndeyjoor kër gaa nga noonu. yow mi déggul ay ñeent ak ñett ak yu mel noonu. Ah. un deux trois quatre. Mm-hmm. nga jàdd ci quatrième bi. Mm-hmm. quatrième kër gi. Mm-hmm. kon noonu la. waaw ah. mu koy waxee ci tukkuloor sa erfaal xam naa dina ma ko wax ak yu mel noonu. waaw mi ngi <laughs> noonu sëñ Moustapha Ndiaye ak. bu dee ne bu dee ne Fass Mbao. Fass Mbao. boo dee ñëw Fass jógee da booy dugg Dakar nooy def. boo boo boo fekkee da ngay da ngay dugg Dakar. waaw boo wàccee ci arrêt fas Mbao bi waaw kër gi sa droite lay féete te léegi dangay dangay da ngay ñëw ba da ñëw da ngay da ah, bu fekkee ci arrêt bi leen la wàccee da ngay mel ni ku dëppaat jëm Tëngéej waaw romb tëli bi jëm rii mam Jaara waaw mbedd bi nga njëkk jot mm. te muy nekk mbedd suuf ci ngay dugg mm. quatrième mbedd moom it boo jàddee boo jàddee wàññil benn mbedd benn mbedd ñaar ñaar ñett ñett ñeenteelu mbedd ñeenteelu mbedd jàddal ah, moom daal ñeent nag ci suivre la jàddal sa jàddal sa sa sa ndeyjoor ñeenteelu kër gi ñeenteelu kër gi kër gi am daare alxuraan kër gi am daare ji <laughs> di la féete sa càmmoñ di la féete mooy kër gi <laughs> mooy kër gi foofu tamit boo déggul daajit <laughs> un deux trois quatre quatrième mbedd nga jàdd ah. un deux trois quatre quatrième maison waaw mooy kër gi mooy kër gi kër gi am daare alxuraan ji daare alxuraan ji mi ngi noonu léegi tamit moom tamit numéro 4 tamit ah, sëriñam di ah, jàkkaarloo kër Modou Khoule jàkkaarloo kër Modou Khoule maanaam damay damay yërëm léeg-la ci nit ñi ci woote bi maanaam Fass Mbao du fooy duggaat Mm. ba wàccee ci arrêt bi waroo duggaat oto foo mën a jógee ci Sénégal ba wàccee ci arrêt Fass Mbao bi waaw laajteel cité ñu ne la mi ngi nii mm. boo duggee cité Mandela koo laaj kër sëñ Moustapha Ndiaye Al ba ci xale bi gën a ndaw mm. soo ko laajee kër sëñ Moustapha ba fàtte woon sama tur sax boo nee ana kër sëñ bi sama kër leen indi macha allah waaw foofa dama boo fàttee sama tur xamutoo nu ma tudd ne ana kër sëñ bi incha allah sama kër leen indi sa kër <laughs> kon loolu <laughs> tawfeex la te damay ah. la xale yi gën a ndaw waxuma la mag ñi mm. barki dem rek maa ngi ci wax soo benn yaay bu rek ci bi mm. te Fassma mi ngi may tooñ naan ma bàyyi bàyyi tamit ndax xale mag ñi tamit ñi tegtalaate rek mag ñi tamit dañuy tegtalaate <laughs> waaw ah. leen siyaare baax waa Cité Mandela waaw fa nga xam moo fa gën a siiw meer mënu ma leen a fay mm. nit ñi baax fa dëkk am naa fa ay yaay am naa fa ay mag am naa fa ay rak am naa fa ay baay te gis naa fi sax benn xale bu tudd maam Cheikh. waaw maam Cheikh ma ngi noonu. <laughs> waaw bëri na ay xale yu ma fa jëlee indi leen Touba. Mhm. waaye maam Cheikh moom moom sama dooma. macha allah foofa ca koñ ba lañ ko yëkkatee may ma ko. may bi ne ma kii moom sa dooma yaay ndayam yaay baayam. macha allah nga xam ni fii ci kër gi. nekk sama kër Touba. Mhm. waaw nga xam moom man mën naa ne may ndayam may baayam. macha <laughs> naa nag yaakaar nit moom bu nekkee ci barab. nekk fa nekkin wu rafet. Mm-hmm. moo mën a am loolu. moo mën a am loolu wax dëgg yàlla ndax it waaye nit ñi it wax dëgg yàlla yaatal nañu. yaatal nañu ndax bu ñu ñu xataloon loolu duñ ko fa mën a amee nag. Mm-hmm. mais buñ la yaataloon ngay déborder tamit <laughs> doo neex dëkkal. kon tamit yéen ñaar kenn ku ne dafa def li ko war. jërëjëf Pape Fass Mbaw jàpp nañ la ak junni loxo. yow it nga jàpp leen ak millions loxo. kon yàlla na yàlla xeb dolli. Mm-hmm. musal leen ci seytaane te gën leen. dëgëral seen ànd ci dëgg rek. ba ku ne am ci lu kawe njortu ci barke. li ngay defal askan yi foofu yokk bu baax a baax. sëñ Moussa Wade Al léegi balaa ñuy dugg ci biir waxtaan bi carrément euh, sëriñ metti na wala neex na metti na metti na ci boo xamee li nga war a def li mhm. nga sëñ waaw sëriñ bu teg mbiram ci ak lu dëgg mooy sëriñ boo xamante ni dafa yëngu ci wàllum ñaan mhm. la wax mhm. nga xam yor na turu yàlla wu sell di jaamu boromum di jaamu boromum waaw moom nit kuy xeesal ñooyam góor guy xeesal góor guy xeesal waaw waaw loolu ñàkk xam ne xam ne bu la romb nga xam ne kii day xeesal waaw waaw loolu moom yomb yor tur yàlla wu sell nag mhm. te sell waaw bu la romboon loo xam ne xamadi mhm. xam ne kii mi ngi jaamu mhm. boobu tamit est-ce du tuuma tuuti yenn sëriñ bëgg ñu danoo leer ci ah. jaamu yàlla ñun kukk waaw ah, kon daal ñi bëgg ñu dafa leer yooyu ñu tey ci loolu waaye jaamu yàlla dafa aju ci ak leer ak ak maanaam deret maanaam deret yuy jaamu suñu borom. bu mm. ñu jëmm ju jaamu yàlla deret yuy jaamu yàlla. Mm. kon ñoom danoo jaawale leer gi. ba boo ko gisee. <laughs> da nga xam ne kii ab jaamu kotub yàlla la. Mm. man man ak yow. Mm-hmm. musuma mm-hmm. def ak yow émission. te kilifa googu ma fasante ak man kóllëre. macha allah. musuma def ak yow émission te nitu yàlla. Mhm. koo xamante ni ñun nit yàlla lañ waaye yàlla koo xam mhm. xam na li ko yàlla fii ñuy def émission bi rek gis naa ñi la fi fekk ñëpp macha allah mi ngi noonu nitu yàlla koo xam xam na li ko yàlla wàcce ci àdduna ndax mhm. ñun ñëpp nitu yàlla lañ waaye am na ñoo xam ba fi nii xamaguñ li tax ñu àdduna ñoom nit bu dee ne ñun doomu yi dañoo mel ni ku nekk ci ab aljana lañ waroon juddoo fa lañ waroon ndëkk fa lañ waroon dund xaadama mm. awa mooy sunu maam ku ne la maa la gën ne ko adamay sama maam ba xam moom kuy maamam moom kuy maamam mm. kon ñun ñëpp ñoo bokk menn maam mm-hmm. ñoo bokk jànn nday muy xaadama ak awa mooy sunu ñooy ñooy sunu maam ñoo ñaar ñooñee nag aljana la nekkoon ak tooñ moo leen andi àdduna tooñ googe nag moo nu fi bàyyi ñun mm. ñu war a ñëw ñu mel ne ku nekk ci kaso mm-hmm. kaso bi nekk nag lañ yoon la suñu borom dañu koy rëddal ni ñii ngeen fi war a nekke ngir delluwaat aljana gee su ngeen fi nekkee neneen lu wuute ak lii nag bu ngeen faatoo sawar laa leen jëmee mhm. ñaari kër yooyu rek nag moom mhm. nekk fi lu baax dee dem ajjana nekk fi asawaan dee dem sawara baliance mhm. billah waaye nag ñaar benn mënu cee ñàkk nag benn mënu cee ñàkk ñaar yëppay fees ñaar yëppay fees waaw kon li ma bàyyee xel mooy man li ma gëm te te mu wér ma ne moom métier mi gën a metti ci kaw suuf yi waxtu yi may waxe yow mooy ak cëriñ ak bu tegee ci yoon daal mbir yi day metti ci moom wér na ma moom Mm-hmm. ndax fu ñu ma fekk sama njaboot laa nekk. Mm-hmm. léeg-léeg sax dañ may mere. Mm-hmm, ndeysaan. ndax benn bokkutoo ak nit ñi ak dundin. am na yenn yoo boo ci xasee ba nekk. bokkutoo ak nit ñi dundin. li nit ñi def mënoo koo def li nit ñi di wax mënutoo koo wax. xañ nga sa bopp lépp dëgmal sa borom. macha allah li ëpp ci sa temps yàlla nga ko jox. amatoo dara amatoo ci àdduna dara benn cër amatoo ko ci adduna. d'accord mais kër Serigne metti na mais neex na parce que sëñ Moustapha Ndiaye man yéen ñi may seetaan bëgg naa kërug Touba de. Mhm. la illah parce que liggéey rek a wóor bas Pastef rek a wóor parce que kër gii ma gis ak ganeen ak ma maa cat la jàpp yow. cat na la wala. waaw man maa ngi góorgóorlu ci li musul nit cat maa ngi ciy góorgóorlu. fexe mhm. cee mucc. Mhm. waaw parce que boo déggee ma naan Serigne ñax na oto yi gaare nii kër gi rafet nii yaañ nga teral doomu aadama yi may gis euh, Pastef yi bu baax a baax ci lu mu ci man di doon kon ma sëriñ metti na mais am na fayam daal ci kaw ku ko teg ci yoon waaw xam nga xam nga àdduna moom seex waaw doomu aadama la ci boppam waaw lépp lu mu def yitte mhm. maanaam lu mu def yitte mhm. ci taxawal ko man mhm. na koo taxawal dama dama dama jàpp ne waxuma la ak cëriñ waxuma la sëriñ waaw waaye tey euh, am na am na am na ngor soo àndal su ah, su jógee bitim réew. waaw wala déet. waaw ah? ku jógee bitim réew. Sayer Fall sama xarit. waaw est-ce que kër. ah waaw Sayer Fall Sayer maam day nëbbatu moom. ah këram sama kër. Hmm, stade ah? Real lay nekk di fotow quoi. waaw léegi nag kooku nag ki fexe ba këram dàq sama kër. waaw kon war na mën nekk. kon sëñ bi nag ñun seex. góorgóorlu la <laughs> kon daal man déggoo ma la wax de bu ma sañoon. Euh, Serigne day yori milliard. bu ma sañoon. Serigne day tedd mais bu ma sañoon tamit Serigne day am liberté fu ko neex jaar. man nag Cheikh. Ah. fu ma neex jaar de moom dëgg yàlla. waaw waaw loolu mm, mm. oto bii de. Mm. alkarim gii ngay jàkkaarlool. Mm-hmm. fu ko neex lay jaar ci dëkk bi. ñu wax oto yi. Ah, wala waaw waaw oto yi nga xamante ni <laughs> dëkk bi fu ma la romb kër yeeg macha allah ñu bind ci alkarim ci ginnaaw. Uh-huh. fu ma fu maanaam fu may jaar. Mm-hmm. damay taxaw sax taxaw naa sax ci station di sol essence. Mm-hmm. pompiste bi solal ma ba a ne ma def naa ko di. est-ce ma ne ko nag instant ma ne ko li nga ko moom. waaw foofu laa jëm ma génne fay ko. waaw mu génnewaat poosam ca poosam moom ca xaalisu boobu moom lu toll ni li ma ma dama ma ñëw naa sa kër ñaari yoon. ndeysaan. yàlla mi nu tiim xam na loolu. Mm-hmm. ba ci seres yii sax. Mm-hmm. da a fay kenn sa wet ne la baal ma fayal la. sëñ bi mm-hmm. nga xam da ngay dem ba nit ñi sëñ bi. dootoo xamati yow lan la. Hmm. def lu baax rek am solo de. dootoo xamati lan la foo taxaw amatul benn fu may taxaw. mais alkarim da nga xew nag macha allah def nekk te nit du ne ma sëñ Moustapha Ndiaye bi <laughs> dañ lay coow de. waaw ah waaw te jàmm hmm. la tawféex la di ci sant suñu borom. Hmm. di xam ne daal ay milliards moom ñoonu ma ko yàlla ay milliards déedéet waaye yow ay milliards daw tabarkeel ngay jëriñu di jëriñu tabaxi jumaa tabaxi kër réew mi ñu nekk nii maanaam ubbi compte banque di am ay millions 1 million 3 millions 5 millions 10 millions 30 millions 40 millions di dajale ci banque bi. ba mu ah. mën milliard. Ah. man loolu mënuma ko. Hmm. te waaw bañ nga ko ba créer fondation Al Karim di dimbali man li ma li ma ah. amaku néew. da nga koy bokk damay xool ñu ma ko bokkee ak nit ñi. Hmm. ma di ko bokk ak nit ñi. ñuy jël temps fii sax billahi wallahi waaw waaw. non mais kontaan nañu yàlla kër yi gën a yokku oto yi gën a yokku terrain gën a ba nga gën a mën lu baax. Hmm, kontaan na bu baax daal. jërëjëf yàlla yàlla barkeel baax. sëñ Moustapha Ndiaye Al Karim ñi ñuy seetaan Euh, comme léeg leen nit di ñëw sa kër réer gëlëm di woote ñu koy tegtal mais léegi beneen mbir boo xam ne que dafa bari ci réew mi boo ko tëb ku ñëw sa kër sax mais kii ku réer la léeg-léeg nga seen magum jëmm ñu des euh, xel mi desee neex ñu ne réer na hmm. léeg-léeg nga seen xale ñu ne kidnappé nañ ko wala yu mel noonu xeetu réer mbokk yi dugg ci communiqué yi fu ne dugg nañ fa pour réer loolu mun doon koo xam ne que lu jafe la wàllum réer lu réer ku réer ñu réer loo ci mën borom Touba lay seedal ci dëkk bii ma nekk waaw est que am na ñoo xamante bi seen mbokk ñu weneen ne daa sama doom sàngam dafa réer waaw dama leen bërëb sàngam bu ko fekk mu toog ah information am na kon rajo yeeg télé yi ñàkk ngeen benn euh, publicité lu jëm ci annonce ak yooyu sëñ Moustapha Al Karim leen koy bàyyee ku réerati rek jëratul ñuy bind fenn nan ñëw ci sëñ Moustapha Al Karim mu wax leen fa nekk ngeen fekk ko fa léeg-léeg tamit waaw nit woo waa nit déplacé wu na ñëw fekk si sama kër. ñëw wax ma ne ma diw sama doom dafa réer. ma ne boo ko dee gisaat ay yërëm lañ lay jox faatu na. ah. Mhm. suñu sa njaar këram ba la commencé ragal. xam nga jëloon nañ la émission. waaw euh, ngay ba oto ba ka ne woon oto bi changé ko. mu yàqoo sens la ca xew-xew waaw xam nga suñu seex man nëppeewu ma man. du ma mhm. nappaate kat. doon nappaate kat doo tiitalaate kat. du ma tiitalaate. dama lay wax li ma gis. déet mais kanam gu sedd gi nga yor gu oyof ba pare te mën a wax yenn yu rëy waaw déedéet xam nga tamit xam nga tamit nit bu fekkante mi dafa jug mm-hmm. ngir xam dara nga xam ko man ko koo wax wax ko ko leeral ko ko mm-hmm. tey man nit ñëw na ne ma damaa bëgg nga seetal ma sama doom dafa réer ma ne la boo demee bërëb sàngam danga ko fekk mu toog ko mm-hmm. ñu dem fekk ko fa àndaat ak moom ñëw ci kër gi ah. nit ñëw na toog ak man wax ak man ne ma sama doom dafa réer ma ne kii ma gis ne man nekkut ak rom dundatut faatu na ba ngay dem ba gis dama lay waxoon loolu la nga gisat am na ci koo xam ay photo la mu andi la photo yi bi mu nekkee néew dañ ko nga melokaan wu yéeme la xam nga sëñ seex dama ne la gis nga sëñ seex jaamu hmm. yàlla lu munta may nit amut macha allah jaamu suñ borom lu munta may doomu aadama amut hmm. ñun buñ toogoon tuubaa gii képp nekk suñu kurus ak suñu per luñ munta am ci àdduna amut macha waaye léeg-léeg jamono junne nag ak lam laaj mhm. léeg-léeg da ngay dégg ku naan la ah ñoom daal sëñ bi dañuy defar dañuy publicité ak dañuy nangam ñun man du ma dem seex du ma dem ci télé di publicité man su ma dee publicité xam nga lu may publicité ak màggal war a màggal ak ay waaw ay màggal ak su ma dee ak màggal war ak cant sëñ Moudou Moussa waaw ginnaaw ginnaaw sax même ginnaaw sax mais man maa ci tontu de sëñ ah? dem bay publicité ay cant sax waaw publicité ay màggal wax dëgg yàlla war nga a publicité kiriñ déggoo li ma la wax sawaay li ci garaaw mooy nit ñi da ngay dégg ku naan la ku xam dara ma nga àll ba. loolu moom suñu seex dañ ko wax a wax. maa ngi wax bay bëgg a dee loolu moom nañ ko romb ak tamit génn ci télé yi génn télé ba arab mm-hmm. ñaata nit nga xam. ñoo xam mm-hmm. bi ñu xamanteeg te Moustapha Ndiaye al Karim. di sant ci télévision lañ ko xamee wala ci rajo. di sant ndeysaan ci rajo man kay bu déggoo li ma la wax bu doon ay doomi tegtal ak ñu tegtal faj ak nangam mën naa la ci indil lu dul jeex mi ngi noonu kon nag loolu moom njariñ la quoi gis nga tamit toog ci télé wax lu dul dëgg baaxul mais toog sa kër wax lu dul dëgg baaxul doomu aadama yi dafuñu hmm. am nañ ay xel te ñi ngi xalaat wax dëgg yàlla moo tax côté boobu bu fekkante bi ni gis nga lii xam ne carrément lii yàlla rek fi nekk hmm. ñun suñ seex ay njare njare lañ hmm. njare la ñu dëkk njare cent pour cent ah. doon yor dereti njare waaye yor direct ngërëmul Cheikhul Khadim mm. fii saal bii ma toog photo bii nga jàkkaar loolu mm. fi la doomi Ahmadul Muxtaar toog suñ xarit ñu sopp ko bu baax a baax yàlla na fi yàgg loolu tax kon na sëkk seede ci mm. ne ñun ko waxuñu ko photo bii nga jàkkaar loolu nii bii billaahi waaw ci photo bii la xanaa ci photo bii la masha Allah ah billaahi ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool te ànd ni ngay sagalee sëriñ Moustapha Ndiaye alkarim daal yàlla la ko yàlla gën a sagale ci sa darajay maam sëñ Modou Moustapha yàlla nga fi ak loolu te ànd ko wér wér bu baax a baax a baax ndax daal kontaan nañ ci yow mhm. billaay képp bépp taalibe bépp jullit kontaan na ci yow mhm. ci Pastef mhm. kontaan nañ bu baax a baax daal léegi euh, ngi ñëwoon ci kuréel daal kon ñu bàyyi annonce yi te ñëw ci yow waaw waaw moom daal suñu seex daal loolu la man daal man sëñ bii dafa ma lu am am am am xam-xam bu leer man koo teg ci yoon mhm. teg ko ci dëgg mhm. teg ko ci ak sell teg ko ci ak xam ba lu ci nit mën a andi aajo yu nit mën a andi ci noonu ñu man a feex ba sa aajo faju mhm. ku réer daal kon léegi ku bu wéer ak bu wéerul yëpp daal mu ñëw kon yéen ñi sonn ci ku réer sëñ Moustapha Ndiaye Al Karim nee na incha allah ku ci ñëwati ci ku rek dinga am jàmm ak salaam bu soobee yàlla sëñ Moustapha Ndiaye Al Karim euh, dëkk bi nekk doon Afrique doon dëkk bu xaw a metti am ni ñooñu nit ñi dañ leen gaafal kenn wóolootu ñu ku am gaaf yan signe lay def pour ñu may ko moytu ko ak tamit nitu wërsëg daal na lay mel. contraire lan lan mooy gaaf suñu Cheikh. gaaf mooy kun sikkal ne lu mu laal mu yàqu lu mu xool mu yàqu wala bu la nuyoo maam koo xam daal nit ñi duñ bëgg ci moom. loolu de sëñ bi daanaka ñaare koo gis ñu di ko war ak ku ñàkk la ku timurank ci àdduna. ku ñàkk. na fexe ba am alal. Mhm. bis mu amee alal. dootuñu ko limati ci ñi ñi gaafal. Mhm. képp ku famille boo gis. Mm-hmm. ñu naan ñii dañ leen di tooñ te wax nañ dëgg dañ leen tooñ de waaw baatub dañ koy tooñ dañ koy tooñ yow sax yaa ngi bokk ci ñuy tooñee yaa ngi mm-hmm. tooñee yaa ngi tooñ nañ bàyyi baatub diw dama koy tooñ mm-hmm. mooy diw dama koy tooñ kon yaa ngi am bakkaar sëñ Cheikh waaw nit ki gën a sonn ci famille bi gën caa ñàkk même bu ca magoon gën caa weex ba jaaw kenn du ko yëgal dara kenn du ko yëgal dara kenn du ko yëgal dara kenn du ko tàggu te moo cee gën a néew ay turandoo Mm. famille bu ne ka ci ëpp alal a ci ëppi turandoo mm. réew yu nu nekk laa la wax de mm. famille ba famille bu ne ka ci ëpp alal mu ci ëppi turandoo mu ci ëppi turandoo waaw lu leer laa lay wax te doo gépp koo dégg ñu naan ñi leen di gaafal dañ leen tooñ ñu ñàkk lañ ah, mais kon gaaf gëmu ko waaye sëñ bi yooyu ay caaxaan la rek nan dem jaamu jàll te bàyyi suñu caaxaan yi sëñ sax mm-hmm. mais gaaf ba léegi bokkut ak kee de bokkut ak nit ku ni tooñ ak yooyu de gaaf beneen mbir man daal ay gaaf ay mooy bëgg a takk soxna dama mm. xool ko ñu ne la ah kii de nangam nangam kii de wërsëg àndul ak nangam ak nangam wala nga mm. bëgg a jëndu kër xool ne kër gi delloo ginnaaw la la jëmee wala baax na fi yow mm. wala nga bëgg a jëndu fas wala nga bëgg a jëndu oto loolu xam ci ay gaaf macha allah waaye gaafal nit naan kii dama waruma ànd ak moom nag nanga samay mbir ak nangam ak nangam am daa am gaaf caaxaan rek kon dégg ngeen sëñ Moustapha Ndiaye Al li mu wax ku ñuy gaafal kon sant ko gërëm ko daal moo ngi noonu sëñ Moustapha Ndiaye Al Karim neer nag yab nga ko neer sciatique waaw ay nga ci waaw ni nga ko waxee yomb na da nga ci ay bu mu ëpp wala da ci ayul bu baax rek. xam nga ni ko waaw mu gàtt rek ko dama ko man rek moo tax xam nga lu ma man moom suñu seex man xam nga ni xam mhm. loo ma laajoon loo ma mën dama dama koy gàttal mënu ma ko laa lay wax. Mhm. si ñu neer ku xam ko waaw na xam nga bëri na daal. bëri na waaw du lu ma mën a leeral daal moom. Mhm. mais daal man nga ko daal mu gën a gàtt man naa ko daal moom. ndax am na ñoo xamante bi ni jàpp nañ ne dalu leen te bu ñëwee sama kër danaa xam ne moo leen dal waaw am na ci ñoo xamante dem nañ ba war leen ci opéré. waaw. waaw mais am na ci ñoo xamante bi faat na leen rey na leen bëri na. jërëjëf sëñ Moustapha Diagne gis naa koo xamante bi bi ma ko cee xam na ci nag fu mu egg ci ne c'est trop tard. waaw mënatoo ci dara mënatoo ci dara ndax daanaka ñaare léeg-léeg moo cancer ci góor ñooy faral di yem. sëñ Moustapha Diagne alkali góor su heure bu cancer bu bis boo xam ne dafa cancer mënatu ko mënatu ko mënatu ko faj. ça Mhm. sëñ Moustapha Ndiaye alkarim waaye daal suñu seex waaw nañu wàññi graisse gi suñu bopp suñu yaram yi graisse waaw gars yi wàññi dibi bi ko maanaam bëri na lu day def sport même boo doon lekk dibi dal def sport mhm. loo mën a lekk suñu seex dal def sport mhm. am na ci ñoo xamante ne bis bu ñu demoon stanér xool li nekk seen deret li nekk seen yaram ci graisse kenn xamul nu mu toll yow ay cholestérol yooyu ay nga ci dem waaw ah, dañuy fexe ba ba ba maanaam ba ba daal fexe daal fexe daal suñu seex mooy ñun am nañ garab yoo xam nit ki bu ko jëloon maanaam graisse moom dootu nekk ci yaramam. ah day set wicc. waaw day set wicc. après bu tàmbaliwaatee moom moo xam na. Ah, waaw d'accord. Mhm. jërëjëf sëñ Moussa Diakhaté am na feebar yoo xamante yi du luy wér. ci nit bu ko doomu aadama xasee a lu luy wér sax ndax dafa diis. Mhm. waaye du man du lu ma mën a wéral. Mhm. ndax gëwuma man feebar bu dul wér gëwuma ko man. bu dul loo mënta faj laa gëm. boo mënta faj. jeex na kon estomac nag yem nga ko. waaw mën naa ko faj bu mu wér. ñaata fan. bàyyi naa wax nag ci feebar ay fan. ah lu tax. am na feebar yoo xam daal bu nga ñëw ma faj ko léegi. léegi waaye am na feebar yoo xam bàyyi naa ko wax ci ay fan. ndax kenn ku ne ak ni mu lay def nag bokk bokkuñu nag. Mm-hmm. ak fu mu la toll. d'accord am na ñoo xam dem nañ ba seen estomac jural ñu ab góom. Mm-hmm. yow tamit danga ne bëñ da ci ay loolu ko xam ne que ku am problème mu bëñ ku ko duggaale sama kër doo ko génnaale ale bi da ko amaat du ko amaat waaw mhm. Mhm. bëñ buy metti wala bëñ buñ war a buddi ñi buddi kon buy metti laa wax ah. buy metti lu mu metti metti doonte daa bënn tey metti ak metti mm. lu mën a doon bu ñëwee sama kër du ko génnaale mm. ah mais ne ko fi buddi bëñ ak yooyu de eh, buddi bëñ waaw ah. déedéet ma bëñ de ah. <laughs> ku xas buddi bañ. tey nag tey nag buddiloo ma kenn bañin nag. waaw ah. man du ma buddi bañ. waaw ah. waaye buddiloo ma kenn bañam. Hmm, d'accord bañ bu demee ba am problème da ngay dem ñu polomé ko. polomé ko ba mu dañal boppam. te polomé tam waaye dem jël ak pièce. wekk bañ sànni. man jàpp naa loolu danger gënu ko gënu ko. Hmm, ban conséquence a jural lu ne mën na la ko jural xoolal góor gi la ëpp bañu kaw yu mu dindi ak góor ak jigéen a ci yem. nit ki la ëpp bañu kaw yu mu dindi moo lay gën a gaaw a fàtte moo lay gën a gaaw moo lay njëkk a naax góor gi la ëpp gu ñu suuf yi mu dindi moo lay gën a néew sëy ci moo lay gën a gaaw maanaam maanaam ni muy néewee kattan ci wàllum sëy kenn xamul ni mu gaaw maanaam bu doon bëree sax dañ koy daan ba suuf tamit ba jigéen gi la ëpp bu ñu suuf yi mu dindi moo lay gën a néewi doom kon daal nee na waaw bëñ moom lu garaaw la am nañu ko war a moytu man daal man daal li ma gëm te je bëñ bëñ bi daa war dem ba yàqul boppam dañal boppam mhm. yow daal la koy traîner daal ngay lijjanti moom méttit waaw méttit bi man daal lu mu métti métti bañ bi lu mu métti métti ak métti lu ko mën a def sama kër métti doo ko génnaale doo ko génnaale macha ko assurance bi joxee ci bëñ hmm. loolu moom pour am ci leer moom da ngay ñëw boo même boo doonee weddikat sax bu la neexee ñëwal waaw weddikat parce que nee na yoral sa yoral dama ne la loolu bañ lu mu métti métti hmm. boo doo génnaale ah doo ko génnaale mais booy duggaat ëllëg baa du méttiwaat ah musuma fajal nit bañam de mu ñëwaat ci kër gi ah. ne ma da koy fajal waat wala bañ baa ngi méttiwaat jërëjëf sëñ Moustapha Dial Karim ngeen dégg ngeen assurance bi mu joxe ci bañ asma tamit dafa mel ni ni ko jekkoo de noonu nga ko dama koo judduwaale da nga ko yen lu diis ah dama koo judduwaale da nga da ngaa judduwaale asma am asma wala dama judd am asma ah da ngaa judd am asma waaw nga xam sama jigéen wii ni ma jàkkaarloo man di ma seetaan mm-hmm. mu juddoo daa neel asma say mbokkit ku la xam-xam na da nga asma ñëpp dama asma woon te it boole ko asma ju métti laa yoroon joo xam ëw ma woon weer mm-hmm. bu may nekk ci adduna te asma ju dama daaneel mm-hmm. te fii may wax ay at wax ay at a ngi ne ko. di leen wax ne xeetu asma nag ku ko santirul ci boppam man mën nañ cee njort ne sëqët gi mën na cee bokk saxaar car rapide yi bu la sonalee mooy loolu bu xiinee nga am problème bu bi nga am problème asma daal surtout xale yi muy lëjël nag mën nga ci loolu xam ni fi ndol yi asma moom mbirum sëñ Cheikh asma moom gone ak a ci yem ku ci mën a faj magum soixante-dix ci asma ba kon daal yow bu ma la déggee asma ku ko xas koo ko fajal bu ko neexee mu dem ci ron car rapide yi sax yendu fa. waaw saxaar dugg ko su yoonam. waaw na kon dégg ko képp ku am sa doom asma sonal la ak yu mel da nga ci boole soj wala boole ko ci soj gars yi dañ koy xeeb te ku ko am problème. man de man de daanaka soj moom suñu Cheikh damay damay soj man mii rek. <laughs> soj soj daal gars yi dañ koy soj daal ku soj moom. Hmm. dama lay wax nga dem hôpital. Hmm. daal fajuma soj soj moom ku mu daal moom demal hôpital. jërëjëf euh, sëñ Moustapha Ndiaye Al Karim dégg li mu wax ci xib feebar yooyu noonu sëñ Moustapha Ndiaye ñu toll ci jamono joo xam ne que concours nag dafa commencé ñëw examen bac BFM xeet yooyu noonu. njëkk xëccoo daal. mu leer na nit ki mën naa jàng dem cóolle. nit ki mën naa bañ a jàng dem réussir affaire yi. mu doon loo xam ne léeg-léeg dana sens la loolu mhm. ma koy tàmbalee mooy. Mhm. képp koo ne képp koo bépp sëriñ booy dégg mu ne mën naa examen. waaw mën naa ñaanal nit mu am bakk wala mu am befem demal ca gone yam dëkkal ca koñ ba nga laajte ay xaleem ay xaleem ñu laaj ñi ñi ñuy def befem ak ñi def bakk Fass Mbao gone yi ñu ngi tuddee gone yi sëñ Moustapha Ndiaye El Karim waaw amul ku ci def befem benn yoon te gañ amoo amul ku ci def bakk benn yoon te amoo waaw ah, loolu moom ci samay gone yi bopp laa la wax de. waaw ci laa koy tàmbalee. sa gone man sëñ Cheikh dama ne la nit lépp lu mu ne la mën naa la ko ñaanal. Mm-hmm. te gisoo ko ci moom tam mm-hmm. bëgg ko. day wax rek mënu ko. kon daal wàll d'accord ngeen wàllum bag ak befe ma concours. non yooyu moom sëñ bi amul solo. amul solo yooyu moom du grawut ku mën a fexe ba nit bokk ci ab gouvernement mën naa <laughs> fexe ba du nit ay sàkk ay befe mën na <laughs> nga. ko. kon ku bëgg a bokk ci guvernement bi xaw yu mel noonu xeet boobu wax na la ko gouvernement bii rek wala yëpp nag. ndax dama ne la gouvernement bu a doon ci àdduna wax. ku mën a hmm. nit mën a fexe ba président de la république ngeen xuloo yéen ñaar mun dama lay dàq. nga hmm. woola téléphone ma ne la bu subaa mu woola téléphone na la dama la tey laa la gën a bëgg. Hmm. <laughs> waaw yooyu du caaxaan doo ko benn jour président ah, woola rek créé ah, maa ngi am ko bëggoon dàq xëy man daal man daal man daal sëñ man daal sëñ yooyu yëpp amul solo li am solo daal mooy na nit ñi nekk jàmm. nekk ci jàmm. Hmm. kon euh, képp waxuma nag euh, ngeen toog rek di yaakaar bag bi bàyyeeku ko sëñ Moustapha Ndiaye Al Karim lépp day diis buñ ko ko bëggee yan noonu bañ a jàngi bañ def li leen war. Hmm. góorgóorlu leen pare xaar rek mu ñëw pour mu lijjanti leen bag wala BFM day yomb dañ koy yan yan bu diis daal. Hmm. léegi lu bokkut ak bag ak BFM nag ay douane euh, gendarme xeet yu mel noonu pour nga xam ne que nit ki day bokk ci mën na doon 400 personnes ñu war ci jël cent personne yu mel noonu yu jafe yooyu mën nga ci dara. waaw mhm, naa ci dara ah, ni nga waxee dafa yomb de. waaw dama ko mën rek suñu seex seex daal lépp loo dégg man nga laaj ma ko ma ne la waaw. waaw ah. naa ko. loolu mën yow loo tële loo tële. li ma mënut. li ma mënut lépp lu ma mënut tële naa ko. Hmm, doy lépp loo xam mënu ma ko moom dama caa tële. dama waaye lépp lu ma ne mën naa ko tëlewu ma ci. tëlewu ci. Hmm. jërëjëf euh, sëñ Moustapha Ndiaye Al Karim léegi ñu ñëwaat nag cat cat cat nga xam ne nit ñi dafa am ñu koy xeeb am ñoo xam ne que fi ni xamee ne cat sonal na leen mooy yegg nañ teer. sëñ Cheikh. waaw. ñu lay catu. waaw ak cat jàppaloo du benn. ah bu bokkul ba ñu lay catu. ah man nan lay catu. mi ngi mel ne ñu lay waxal lu bon te bonoo. waaw waaw ñu waxal lu baax te baaxoo. ma ngi noonu. Mm. cat jàpp la ak nga am cat du benn. Mm. nit ki mën nañ koy waxal bit bu set ñu koy waxal xam nga loolu dama ne la wax naa la ko fan yii bu yegg nee naa la sëñ Cheikh. réew mi ñu dëkk ah. ñu dëkk ñun ay sénégal lañ maa fi lan dëkk ñun ñaar ci réew mi mm, waaw ëpp ñu tudd ci rajo yi rajo yi ak télévision yi mm. revue de presse ñoo tane ci réew mi mm, ñoo fi ci tane ñoo muy président yeeg ministre yeeg sëriñ si de presse ñoom la ñuy wax xibaar yi ñoom la ñuy wax bu nit ñi tiite ñoom lañ jëm bu nit ñu jàqee ñoom lañ jëm bu nit ñi amee problème. mais am na ñooñu leen revue de presse la mais li leen di waxal dara baaxu ci waaye waaye ji wàññiwu leen dara nag. Mm-hmm. même bu daa bu ci dara baaxut wàññiwu leen dara day bu ñu xëyee seen mbir di gën a baax. te même bu ñu leen dee waxal lu bon nag day mel lu bon loolu ñu leen di wax ñu leen di gën a jëme kanam. Mm-hmm. wala déet. waaw doy na war de. léegi nag sëñ bi maanaam doomu aadama sëñ seex bu nit du fayee boppam. Mm-hmm. surtout nag gone gu nekk ci aw yoon bëgg a réussir ci addunaam bul fowee sa bopp bul caaxaane sa bopp Afrique lan nekk de waaw moo xam ba sànku tubaab tubaab mën a gàllankoor adduna man daal suñu sax damay wax ne man mm. li ma gën a ñor ci adduna gën maa yiteel ci adduna mooy doomu aadama bu ne war naa fexe ba kurut yàlla boromam mi ko bind du mën a gàllankoor mbiram mm. da ngeen ko kon jóg leen seen bopp bu baax a baax farlu bindal bindal maire foofu bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit ba di neexul ki wax ci saal bi mu noppi numéro Serigne Moustapha Ndiaye Al Karim émission bi ñoo ngi koy defal këram bi nekk ci Touba ci jannatu bokkut ak yeneen kër yi nekk yu meloon noonu la nekk mais bis boo ñëw janatu bu dul ajjuma rek mën nga tumuranke wax naa lu leer face mbaa nga ko fekk cité Mandela bu dee ajjuma la 8 na la fekk ci kër gi moo gën a wóor dafa 77 524 23 24 77 524 23 24 wala nga def beneen bi 77 440 02 40 77 440 02 40 Serigne Moustapha Ndiaye Alkarim nekk ci Fass Mbao cité Mandela jàkkaarloo kër moo Modou Khoule nga fekk ko fi dis ko si soxla lu mu ci mën mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi ngi xam tëlewul dara te mën na lépp sëñ Moustapha Ndiaye Alkarim dañ bëgg a ñëw nag ci li nga xam ne que booy dox ci mbedd bi soo oto bu buñ ko arrêté moom lan lay wax. ku lay woo di laaj nangam ki nga invité woon nangam nangam looloy dàkkantal bi Serigne Moustapha Ndiaye boroom ndombak dabe ndombak dabe dabe mooy ñu raw la nga dab nga dab ña rawoon ba raw leen wala nga raw ñen te ñoo daw dab ba faw waaw ndombak dabe nga xam ne que àdduna bi moom defe naa bu buñ koy wax dañuy waxati nii rek mais ku ko xamul yow lan war a laaj yaay kan sax waaw ndombak dabe waaw li mu wundi ci njariñ nag pour ki taal rek yem ci nii nii nii nii ci ndombak dabe ñu xawaat par benn benn limal ñu lan mooy ndomb ak dabe ba tax ñu naan dabe te li ma jaaxal nag ndomb ak dabe nag lu ci ëpp ku tardé koy soxla te ku tardé moom suñu ah, seex ndomb ak dabe nag ku tardé rek soxlawu ko ah ku ko même nit bu demee ba taxawal dara ci àdduna mm. bëgg lim taxawal yàqu tëcca mm-hmm. mooy mu fexe ba àdduna sëpp bu ma woon wut si ko mbiram du yàqu mm-hmm. kooko sax kooko sax moo gën a soxla borom alal yi yàqule rek di liggéey lu ne am na mu jot mën nañoo liggéey ba am milliard investir ko ci dara at mu jot cent millions génn ci ñuy gën a dellu ginnaaw luñ taxawal mu yàqu luñ laal mu yàqu te kenn ëpp leen wërsëg nag hmm. te seen cat mooy duñ daje ku jub sax maa ngi noonu léegi nag kooku kooku damay wax ne kooku sax moo gën a sol soxla ndam ak dabe hmm. ndax man ki nga xamante bi ñu jekk gut ci àdduna bu ñëwee damay fexe ba mu jekk bu mën a am ndam ak dabe ndax hmm. ndam ak dabe ni mënoo tëb tëb am ko nag moom ah. waaw ndomb ndax ndomb ak dawe moom dafa du dafa yombut dafa am fooy jaar waaw dafa yombut man nit ki dina ñaq wala mu ñuqi daal waaw moo tax sax doon nii ndomb ak dabe waaw ah. man du ma ko jox nit te seetu muy mbiram te seetooy mbiram ah mooy lan ku dafa am ñu ko yooyowul waaw noonu waaw ñan la waaw ku mën a doon laa ku mën a doon koo soxla ndomb ak dabe hmm. mooy da nga ñëw ci man jàkkaarloog man way laa nga jot ma téléphone mais ndomb ak dawe yaay yaay ëw yaay def lépp lépp maa koy def bu la neex ci kaw mu neex la nag bu dee borom ndigg lu tuuti nag nga jaawale defal ko lu ci kaw mu neex la man sincère waaw man amul ku may bindal. Mhm. man. waaw wutuma ay gone yu may bindal. wutoo gone yu lay bindal yaa bindal sa bopp déedéet déedéet ay gone yu may bindal man. Mhm. moo tax ma ne la man awma garam place yu may toog. mais wut gone yu lay bindal. loolu arabe tamit dara mais mhm. awma ko laa wax man. Mhm. néew ma dafa wàññi dara ba léegi néew ma la amul comprendre waaw man sama bopp man amaguma mhm. ay ay dong ay gone yu may bindal parce que bëgguma ñu yàqal euh, ñi nekk ci daara ji di bind seen business parce que bi nekkee daara ñun dañu daan bindloo dëgg la ay xuloo doo a ayatu kursi ak waa seen finance bi laaj ji xeet yooyu yëpp ñu ko bindloo dina jox ma man ba fii may wax yow man mhm. ndam ak dabe bu la neexee boo ñëwee ndax léeg nit ñëw soxla ko soxla ko jàmp goo xamante bi nii war naa mën a dem war naa mën a dem te diggante bi mu koy soxla. day gàtt day gàtt. Hmm. ba ñun duñ ko mën a ëwal. Hmm. da ngay ñëw jox la ko. Ah, mu dem ëwal yow yaay dem ëwal ko sa bopp. Ah. maanaam ëwal gi ma la koy ëwal du force ci maam maa ko yow. Hmm. du daal du maanaam ci kaw mu neex la rek nag. bu la neexee nga yaa ko yóbbul sa ëwal ko sa bopp defal ko ba ni mel ci yow. mais borom ndigg lu tuuteeg lu rëy nag. surtout ak ku nekk bitim réew moom boo ñëwee. man nangam laa koy liggéeyee. nga yëkkati loola jox ma. dinaa wax ban bis lay noppi. ban bis lay noppi. natt sa ndigg. natt sa ndigg. teg bind. Hmm? ne la bis sàngam boo ñëwee danga nga fekk mu noppi. mais bu dee ku nekk bitim réew mën na ne ah natt ko ci docteur Wade wala natt ko ci. tool nangam lool lool du ma ko nangu ñaare. Ah. léeg-léeg sax yàlla mi tamit xam ne ne sax nit yónnee na ma xaalis dama ndar ko Cheikh Taarif ah gars yi yëpp ci man da ngay def erreur man damay jékki-jékki di yeex ak yi bu baax bu baax la ndeysaan na dem na ba bàyyi la ma bàyyi la ma doomam ndeysaan masha Allah ci Tektal TV la ma xamee ah billaay Tektal bàyyi la ma doomam kees ma jóge Touba ma jóge Dakar ñëw kees maye ko ndeysaan delloo te ba léegi gisanteeguñ man ak moom masha Allah te moom man la bàyyi la doomam waaw billaay dafa dafa waxoon nattu ko ci man nattu ko ci sax <laughs> billaay ko koy natt ci <laughs> sa ay gars yi war ma loolu ko nanga dama ne ko it loolu ñëwee ma ko woo seex naan ko nattal ma si nga bàyyi <laughs> bul faale kuy natt ci man léeg-léeg rek réet dama jékki-jékki mel nii ëllëg ma mel na la dama jékki-jékki tuuti léeg jàpp ma ma xuy ma waaw ay moom mooy loolu quoi moo tax daal mais ku nekk bitim réew daal app pare daal déedéet na natt ko nag moom nañu ne bi am nañu meetar ndax ña ngay ñëw am nañu seen tëdd ah dañuy wax seen centimètre ñu wax la ni toll quoi ah, seen digg seen digg ok kon ndombak dabi li mu ci njariñ benn cet la ak lan ubbeeku bayra kaaraange muslaay lan ak lan ci njariñ nga limal sa bopp kii seetaan dégg xam njariñ bi ndombak gi ndombak dabe la tudd ndombak dabe ndomba googu foo ko mën a dégg ci àdduna waaw sa xel dem ci sëñ Moustapha Ndiaye sëñ Moustapha Ndiaye Al Karim ba ci sëriñ ba ca Fass Mbao sëriñ ba ca Fass Mbao ak jannatu borom mbaxana mu bula mi borom mbaxana mu bula mi <laughs> mbaxana mu bula mi léegi da ko wax ba ma xammee ne mbaxana mu bula rek lay sol <laughs> léegi bàyyi leen ko mbaxana mu bula ngeen xëccoo yeneen couleur yi <laughs> kon willa loolu loolu ah. loolu la yàlla dogal mm-hmm. kon ndomba gi daal cat bay na ubbeeku pour may koy wax nga li waxal sa bopp ñu xam li jiitu ci li muy def ci doomu aadama mooy dana ko aar la aar mm-hmm. kaaraange goo xamante bi ni ndax nit ki damay wax ne man tey jii mm-hmm. loolu képp laa takk sama adduna. Mm-hmm. maam li nga joxe moom nga jëriñ moom laay jëfandikoo. Mm-hmm. ba ci garab sax boo ñëwoon. waaw ah. garabu mu siti mel la jox man. Ah. boo ñëwoon ma ne naan garabu ndoxum siti moom laay naan. nee naa la garabi asma yi may joxe nit ñi. moom laa fajee sama bopp ba wér ci asma. Mm-hmm. ah nga leen njëriñal. Uh, uh, ndomb ak dabe nag li jiitu ci li muy def ci doomu aadama mooy. dana dana la aar. dina la aar benn. ba kur yàlla sa borom mi la bind mënut a gàllankoor sa mbir. lépp loo dugg ci àdduna yi mën nga cee génnaat man nga cee génn ci jàmm nit ñi dem ba a yàqoo waaw da ba yëkkati waat la mooy ndomba goo xamante képp ku suñu borom dimbale ci adduna yi ba nga am ko mhm. dooñee kenn noppee nit doomu aadama noppi na laa dimbale ci àdduna mën ngaa ubbeeku mhm. mën ngaa aaru te kur yàlla sa borom mi la bind mënatul a gàllankoor sa mbir mhm. te yàlla moom day defar sax waaw mooy ndombag dabe bayre mhm. bu ànd ak kaaraange. ndomboog dabe nit muy ubbeeku gu ànd ak kaaraange. ndomboog dabe ma la déggee xale mën na ko takk mag ndaw ak yëpp. waaw xale mën na koo takk waaye xale yi nag faaw am am na at yu muy egg ci mën a takk ndomboog dabe. Ah. am na yenn at yoo xamante ni. day dis mënoo koo koo takk. jigéen tamit mën na ko takk ak góor jigéen mën na koo takk waaye góor ak jigéen bokkuñu. mais ndoom ak dabe ku ko takk léeg-léeg euh, ñi nekk bitim réew am na ñoo xam ne que fi ñuy liggéeyee sellul ci baar laak xeet yu mel noonu yëpp dañuy tekki ndomba ba wala dañ ko yóbbaale. buñ ko xasee aw jeex na. buñ ko xasee wàccoog mën nga ci fa nag ko dugal fépp. Mm. donte nag ci alxuraan lañ koy lekk tur yàlla waaye buñ ko xasee ba aw. Mm. jeex na jeex na kon dégg ngeen ko ndomb ak dabe. te nga ne li ko yàq daal borom nga ko wax ki ko war am. waaw dama ne la ndomb gi ku ko mun ta am. waaw mënoo ko yàq. Mm. ku mënta am ndomba gi mënoo yàq ndomba gi waaye yow mi am ndomba gi te am ci loo ci sikk sàkka woo ma ma wax la li yàq ndomba gi te xam nga ko. li ma la wax ne la moo yàq ndomba daf ko. soo xëyee dootoo ci gis dara. ci ñoom <laughs> jërëjëf euh, sëñ Moustapha Ndiaye alkarim ñu ñëwaat nag ci euh, mi-temps Tektal muy ngóor. waaw waaw noo def ak moom yaa ngi ci aay ba léegi. wala gars yi yaa ngi fi nga nekkoon wala da nga dellu gannaaw ci mbir yi. waaw demee ci wàllum mi-temps Tektal daal ngóor. waaw kooku de moom yaakaar naa sungufus alkarim sungufus alkarim moom ñëpp xam nañ ko fi ñu dolli. sungufus alkarim sungufus nu muy demee noonu. daal na fexeel ba am ko rek suñu sax. Eh. waaw gars yi daal xam nañ sunguf si moom. sunguf si alkarim moom nit ki nu muy mel bu ko utiliser. waaw garab day faj moom day faj. day faj waaw du caa gi garab goo xam da nga ko jël tey. man tey ah bokkut ak oto bu ni rek ñi la doon puus dem seen yoon dama dama lay faj traitement lay doon dama lay faj da nga wér. waaw moom. wér peng waaw da wér moom. ah mag mag moo am as bu ne sax mën na ko. waaw waaye léeg-léeg nag am na nit foo xam ne doomu aadama yi nañ bàyyi xel ni nit jeex. nit day jeex. nit économiser quoi da ngay dem ba. Mhm. say ndoxum bët sax day jeex dootoo mën a gis. déet waay ko rek ay ñoom roy makaay gisati nga leen ay Van Nistelrooy gisati nga leen ay Inzaghi ah waay mooy loolu waaw doomu aadama ci boppam léeg-léeg nit ñi tamit nañu bàyyi xel loolu am na loo ak télé mhm. maanaam yëf yitte la mhm. programme yàlla la ci doomu aadama ni mu liggéey nit waaw da dem ba da ngay jeex waaw mais kooku moom sunguf alkarim mënatu ci dara. Ah, man na am na ko dolli 10 pour cent wala yooyu daal waaw ma ngoog léeg-léeg waaye nag nga mel ne gone guy doog di judd moom hmm. mënta nekk moom ah, <laughs> loolu bu la bu la bu la taxee jug moom jorul nga assurance boobu joxoo ko kenn dégg ngeen ko wax na leen lu leer naññ yéen ñi nga xam ne kat hmm. <laughs> sungufus alkarim kuy gaaw a yegg tamit da nga ko ciy boole même sunguf si loolu dafa am beneen traitement bu ñu defal nag beneen traitement bu ñu defal Mm-hmm. ñiy masturber wu di. utiliser saabu beeg yooyu tamit dan lay defal traitement te it nañ ko bàyyi attention ci loolu. Mm-hmm. surtout doom yi ni jël. doom yi doom. di ngeen ko jël ci doom yi nga xam ne da ngay mel ne gaynde après da lay indi li jafe-jafe daal. lu mu la jox rek dana la jox dana la xañaat ko ëpp. Mm-hmm. su la joxoon dix. jël na vingt jël na vingt. te bu fekkee cinquante fa des. xamal ne trente la dese. kon nee na mooy moytu doom yi bu baax saabu bi nag. looloo gën a bon moo gën a bon sab bi dugg ci douche bi wéet yàgg fa lool. dégg ngeen ko am na ñoo xam waxuma la dugg ci douche. seen ah. lal ñuy tëdd seen kaw lal. Mm. Mm. la ñuy tëdd am na xale ko. Mm. seen kaw mais loolu rab la rab lañ koy jiñ wala sa téléphone nii. jàpp sa awra téye di fo sa bopp. Mm-hmm. loolu waxuma am benn waaye bu xorom bu doon wax muy génn. waaye day dem ba sa sidit day bañ. loolu day bañ loo ay sidit sax. loolu sax moo gën a bon say góor yi da ngeen ko kon masturbé wu ngeen moytu ko bu baax a baax la waaju xoroma ja waxoon ko nekkoon buntu Pikine rek gaa yi di ko seetaan loo yenn yi mu ne leen lii daal seetaan leen bàyyi noonu quoi lii da koy indil yowum jël ak fóot mu bari rek mhm. dégg ngeen ko kon moytu saabu <laughs> sëñ sama Ndiaye alkarim no tegtal ñun mënuñu ñu ni seetaan ñenn ñi nekk ci jaaxle ñu war leen gindi ñu nit ñu gën leen jaaxle déedéet tegtal da ngay war a ree bëgg am njëriñ am solution ci li ngay nekk carrément moo tax mais <laughs> kon daal dégg ko bu baax a baax ñu moytu rab yi ñu ko jiiñ nag moom ñoom lam dit waaw rab de mën na koo def mm-hmm. ndax rab moom mooy loo xamante ku ñëw àdduna am nga mm-hmm. te kenn mënu koo tàggale ak nit mm-hmm. far rab coro rab ay nga ci cheikh waaw ku ñëw àdduna am nga ko te kenn mënu koo tàggale pour mu bañ yàqalati nit la ay nga ci waaw mën na maa fexe ba dootu la a yàqal dara ci sa àdduna moom rab moom rab waaw ah. mën na maa fexe ba sa àdduna rab dootu la mën a yàqal dara sëñ Moustapha Dial Karim jigéen ñi nga xam numéro yaa ngi noonu ci écran bi jërul ngeen ma koy laaj bind laa ko leer na nañ sa bët yi mooy am problème wala sëñ Moustapha Dial Karim jigéen ñi nga xam ne que as bi sori na borom kër të ñii tamit ñii ñëw aksi ñoom ñu bëgg dëgg ay caaxaankat di ñëw xeet googu daal ñu dayal ci yooyu ñii sëy euh, seen sëy boobu tas euh, soit seen borom kër jóge fa amaatun kaneen ñii si tàqalikoo seen borom kër tëkkoonte am fa doo fi amaat lii wala yu mel xeet yooyu daal xeetu am borom kër nga xam ne am na ci ñu bëri ñoo xam ñi ngi lay seetaan ñu ngi ak seen i oto ñu ngi ak seen kër ñi ngi ak leen si nang mais problème borom kër borom kër mooy seen problème léeg-léeg dinañ gis gaay mais gaay yu bëgg lu yomb lay doon. fexeel ba ñëw ba ma jox la sama mbuus googu nga ah. ah, cangat yu saf sap. waaw. cangat bu ñëwee da nga naan ko sa jëkkër bu ñëw. lii lay ñëw ah. yàlla na ko yàlla dimbali ba ñëw ba ma jox ko sama mbuus googu. dégg ko <laughs> nee na yéen ñi am problème mu am borom kër boo ñëwee bu la ci joxee càngat yi mu saf sap ñaata fan. non càngat yi du yàgg. du yàgg. Mm-hmm. mais mu ci lu gaaw daal jëkkër dina ñëw. du yàgg yàlla noonu yàlla dimbale ba ñu xam li la ko def nag. Mm-hmm. loolu léegi ñi nga xam ne que dañuy boole di am bëgg sëy rek te yàlla tax. Mm-hmm. ba sa bëgg sëy boobu di leen faral di indil jëkkër yu bari. maanaam fu dem dañuy yàkkamte am jëkkër gaa lu ne ñu dugg ci man ci génnaat. waaw xam nga àdduna sëñ bi àdduna nit. da koy teg ak dal. bañ koo teg ci ak bëgg mhm. teg ko ci ak xam mhm. ab sëy bi bu set ma wax ne mhm. bala nga cee dugg waaw war nga koo xool ba xam ak mu jëm te balaa mbëggeel gi sori mu teel ko bàyyi leen leen waaw ndax bëgg ba bëggeel sori nag mbëggeel yu inde yooyu ngay seetlu lu la sëñ bi wax doo ko dégg waaw foofu la problème bi nekk ma ngoog loolu da ciy mat a bàyyi xel bu la miinagul ngay commencé seetlu bu la bu ne laa lii nag nga xam ne ko boobu mbëggeel bi soreegul kooku lañ ñu war a ñëw nag moom moom ah. aha fii nag dafa fii ñëw ci lu leer sëñ Moustapha Dial Karim mii hmm. dama leen di seedal ne ku am Pastef la ci liggéey bi hmm. ku ko teg ci yoon la hmm. dañ def émission maanaam duñ ñu kalaame duñ ñu kalaame duñ ñu kalaame ba benn jour ñuy def émission rek benn femme woo ma takk sama kaw indil ma kii may taxaw di maslaa mu takkat sama kaw ma ne ko soxna si nag defa ndànk wax ak moom sama ñetti dëkk ne ko kii duñ ma kalaame ak moom ak lii woo ne ko li nga may wax lépp transféré ma ko WhatsApp mu transféré ma ma transféré ko sëñ Moustapha Ndiaye Al Karim ko ne ko ak lii gis nga am na sëriñ soo xam ne boo leen defee lu mel noonu ci saa si la ni tàkk sa kaw ñoom it mhm. kalaame la indi lay jafe-jafe mhm. wala yu mel noonu mais sëñ Moustapha Ndiaye jour boobu dafa mel ne ku nekk ci dëj mhm. mel ne ku nekk ci problème dafa jékk-jékk ñëw dama jox ma numéro am woo ko ñaata nga ma dugal loon mu dugalaat ko di masla sëñ Moustapha Ndiaye Karim loolu neex ma lool ci moom Pastef ba mu doxale xam nga sëñ Cheikh waaw yow mi nga xam ne da ñëw di seetlu si. loolu ci loo te foofu damay ci indi lu leer de. Mhm. bi mu ma waxee. Mhm. daf maa wax lu leer daf ne ma. Mhm. Euh, kii li mu ma doon seetloo ci biirub sëy bu taxaw ba pare. du ma ci seet xam nga waaw waxal sax mu gën a leer. man ak yow nga laaj ma. ma ne leen man nit ki bu ma woowee di ma seetlu dama ko laaj looy seetlu. laa lay laaj. léegi nag yow mi nga xamante da ngay sa diggante ak sa borom kër mhm. wala yow mi nga xam sa da ngay seetlu sa soxna sa diggante ak sa soxna mhm. bu fekkee loolu kese nga a xam sa bopp bul ñëw sama kër bul ma sa xaalis mhm. ndax man seetuma ab sëy dégg sa diggante sa borom kër naan dañ laa leen liggéey ak dañ leen a nangam loolu du ma ko wax li mu gis lépp du ko mën a wax waaw du ma li ma ci métti soxna soos doon sama soppee du caagi ne ah. dama ko mënut waaye dama ko dama daf Mm-hmm. ndax xam nga léeg-léeg suñu mm-hmm. man damaa am ñeewante ci doomu aadama yi. macha mm-hmm. gis koo xam ne dafa lay seetaan ci télé. xëy julli ñaari rakka. yàlla maa ngi lay ñaan sëñ Moustapha Ndiaye al Karim mii ma gis télé bi biig su ma demee këram yàlla naa ko fekk yàlla naa ko gis. macha waaye maa ngi xamloo nit ñi ne leen. sama bi fa muy liggéeyee sama liggéeyukaay. waaw. tooguma fa ngir di jàmmasante ak ak di kaf ak nit ñi ak di reeg nit ko waaw. dama fay toog ngir di liggéey. am naa ay xarit ci ñaan ci ñoom ñaana ma boole ak ñoom am naa ci ay wëllëre waaye dañuy xamante man ak yow nga dem ba nekk sama xarit may déplacé du ñëw sa nee naa la léegi sañu seex métier mii am naa ci ñu ma ci am naa ci lépp macha allah bàyyi doom lépp am na waxuma sax teraanga waaye am naa ci ay nit ñu baax ñi am naa ci ay nit ba seq lu ne tey léegi nag kooka bu fekkee ne mënta maslaa loolu du ko am wax dëgg yàlla maslaa dafa baax maslaa lay def ak nit ñi hmm. waaye nag dafa am foo xamante yow bu fekkee yow bi ngay ñëw fekk nga cinquante personnes toog nga bëgg a ñëw toog seetlu dix minutes wala cinq minutes ñu seetal la cinq minutes. nga bëgg a waxtaan ak sëñ Moustapha cinq minutes jàmm santeeg moom dix minutes. ak moom cinq yeneen cinq minutes. Ah. génn dem ma trente minutes. léegi nga xam yow trente minutes man nga koo am ak sama diggante ak yow. ba jant bi sow te man su programme bi ma yor mooy su ma xëy si woon. fekk cinquante personnes toog sama kër mën naa leen a jël ci moyen d'une heure de temps. Hmm. man bokkuma ci. loolu ba doo leen sax sax rek non ah, du ma dajalee nit man. da ngay ñëw wax ma sa soxla bu ma xam li ñu koy defee ñu defal loo ko nga dem sa yoon man nekk ma dajale ay nit ay adduna yi nit gàlloo ci kër gi ñuy toog ci mbedd mi donte da ngay ñëw sax ci kër gi léeg-léeg fekk nit ñi nekk ci mbedd meeg yenn fenn kii toog fii mais waaye nag yoruma programme boo xamante ni damay yor programme dajale nit ñi sama kër liggéey dix minutes quinze minutes génn dem ñëwaat ñëwaat toog bàyyiwaat nit ñi du romb nit sama kër di génn di dem mm-hmm. am na tamit beneen waay boo xam ne que tamit clamé na bi mu clamé ci wàllum seet beeg yooyu gisuma ci sama bopp nangam nangam ma ne ko saay mu ne mu waaw ma ko xaaral mhm. woo sëñ Moustapha Ndiaye Al Karim jox ko numéro bii nga woo ko ngeen wax waaj a commencé di masla lu mu la wax ba mu la wawaatee lu mu la wax déet ba mu commencé kay moom masla na xam nga xam nga lam la wax mooy sëñ bi gis na ma mhm. lépp ma wax dëgg la mhm. waaye te moom ba ma woowee xam nga sëñ Cheikh ma ne ma la loo may seetlu waaw nga ne ma sama mbir laa bëgg nga seetal ma ko ma seetal la say mbir. ba wax ko moom. <laughs> loolu sax. ma wax ko mais su ko wax. maanaam daal seet dégg li gën a garaaw mooy kooku. Uh-huh. Uh-huh. ñu këppee mu woo la. waaw diggante bi mën mën bi ma woowaat ak yow. ma dul trop ñaari minute. billaay wallaay kooka. Mm-hmm. benn problème programme la amoon. Mm-hmm. mooy li ñu naan kii si li nga naan yow kii kenn mësuma kalaamee ak moom. kenn mësuma kalaamee bëgg laa woon ne la man kalaamee naa la ak moom. mais loolu moo tax kalaame sax. man léegi ba mu coupé ak man. waaw ah. ba ni ma sëñ bi de diw mii ma ne ko kii sëñ bi ma ah. waxee numéro bi. Ah. kii bi mu coupé ak man léegi bu doon ñaari minute. billaay pour ko téléphone. Mhm. sëñ bi man la sëñ Moustapha Ndiaye Alkarim ma ne ma waaw ma ne ko loo wax Cheikh Talif. Mhm. ma doon baax na baax ma ne ko loo wax Cheikh Talif mu ne ma dama ne ko man sëñ bi gisuma ma ne ko loo ma wax bi may seetloo mu ne ma nangam ak nangam dama ne seetal ma samay mbir ma ne ko lan laa la wax nga xam ndagate moom li gën a garaaw mooy mooy bi ma doon seetloo digluwu ma moom barki alxuraanu karim li ma ko doon wax digluwu ko dégg ngeen nga xam yàkkamti na ma wax ba pare ah. mu woo la téléphone rek wan na ne la kii gisuma nga xam ne bëggut a xam mhm. waaw waaw mhm. waaw léegi kii nga jàkkaarloo Sayer mii nga jàkkaarloo Sayer mhm. Fall ñaari yoon laa ko seetal mii nii sama kër tey toog yaa ko fi indi yaa ko fi ñu ah? ànd nekk Espagne la nekk waaw Espagne la nekk waaw te nee na bëgg na ñaari yoon la ma woo téléphone gis nga déedéet sëñ Cheikh waaw boo dee wax buñ dee wax léeg-léeg mhm. ñi lay woo di attaque waaw non man na yëpp laa xam nañ xam nga waaw mi noonu te dama ne la bu mhm. fekkente ni man lu xam nga ñaata yoon la wax ne la xam nga tey benn affaire non mhm. lu mu gàtt gat gat gàtt tegtal juróomi junni nit fukki junni nit. Hmm. di cinquante mille personnes. wér nañ ci benn cinquante mille personnes laa la wax. Hmm. xamee xamee xamee nañ ma ci tegtal. muy noonu cinquante mille. Hmm. bu ci ñaari nit jugee cinquante mille personnes. wax dëgg waaw moo tax ma ne la ci trois ans ñetti at. ñetti at ñuy liggéey man ak yow. ñaar non non déggoo li ma la man lii may wax nii man maa bëgg man ak yow ñu wax ci émission bi. déggoo li ma la wax moo tax ma ne man maa sàkku da nga demoon dañ ciy wax. dañ ciy wax moo tax xam nga tey mënoon lim yu baax yi. mais mu toog yu kii man damaa bëgg. Mm-hmm. mooy man nit ñi xam ne man doxuma ci tappale. doxul ci tapp te et tamit. Ah. Euh, li wax mooy mm-hmm. sëriñ sépp su man di doon samay xarit la jigéen bu jugee ca këram mm-hmm. ñëw di ma seetloob sëy ma ne ko dama seetloob sëy mu woo ci dama ci attaqué fenn. loolu mi noonu di leen wax tamit man du ma juge du ma magistrat de man li ma man jokkalante lu rafet. du ma ko yee fitna bu doon xam xam naa xaaj bi. mais lépp lu yàqal doomu aadama ak yu mel noonu doxuma ci lépp luy xaawi sutura doxuma ci man daal jokkalante ñaari nit ñi ñu déggoo ci jàmm ak salaam mooy sama yitte kay jënd ak kër waaw kër ga am coow mu ne damaa bëgg nga seetal ma samay mbir waaw mu ko samay mbir mu ne ma sama kër gi nag sama kër gi nag ma am ma ma ma ma ne ko nangam ak nangam nag Mm-hmm. <laughs> mu ne wax nga dëgg de. wax nga dëgg. bàyyi leen foofu man ba man man eh, sëñ man tëppalewu ma. man sëñ Cheikh xam-xam bu sell. Mm-hmm. bu tege ci baatin bu leer. Mm-hmm. moom laa yor. macha allah damaa toog ne la. mam Demba Ndiaye Njare. Mm, Demba Ndiaye mooy askanu Njare. ñëpp mooy seen maam. samay baay ak may diglu samay maama may diglu samay nijaay may diglu ku ne may diglu. mam Demba Ndiaye Njare laa la wax. mam Demba Ndiaye Njare. ku ma seddu ci lam yoroon baatin ba mu yoroon. yaa ca ñaan yàlla di ca faj. Mm. jaami yàlla ñuy wér. ku mu ci gën a seet du xub ci kaw suuf ba pare nga doon lépp sëñ Ahmadou Mokhtar Mbacké xalif Daaru Xuddus yàlla na fi yàgg looy tàggoo bu dul tàggoo sant ko gërëm sa lépp maa ngi jaajëfal mais léegi di la wax tamit benn affaire euh, xarit la sama lépp la lii sàkku na pour ma wax parce que bi biñ ciy wax dane lii moom il faut bu ñu def émission ñu leeral ci parce que man damaa bëgg sëriñ bu may jox liberté boo xam ne que lu baax lu ma gis wax la lu négatif lu ma gis wax la ñu leeral lépp ñu nekk ci leneen daal man daal sëñ seex masha Allah dix mille euh, cinquante mille personnes li gën a néew dama doon xayma rek laay wax. Hmm. ndax man mën naa laa xayma ne la. man am na sama kër xaw ma naan Tafsir mi ngi lay nuyu. waaw euh, fàtte naa tur mi ngi Italie. waaw maanaam ñaata nit yoo xam ne que. sëy soppe la wax ma lu baax ci yow ba nii. bëri na àdduna na hmm. bari na. koy sama kër euh, Tafsir mi nga tudd sax maa ngi ci maa ngi hmm. sama bàyyi sama xarit Tafsir Sakho. Tafsir Sakho. bu teewoon bu teewoon. nga ñëpp xam nañ ko. nga xam saa yu sëñ Mbaye si Mansour toogee nii. ba ci sëñ Abdou sax moo daan toog di seen wet macha allah nga xam ne di sama xarit di sama baay di sama soppee macha di ko ma bëgg lool nga xamante ni ci rajo yeeg télé rek la ma xamee ba tax ñu seq lépp di gis hmm. noonu hmm. di nuyu mboolem kuy tijaan hmm. nekk ci àdduna foo mën a nekk ci àdduna rek su ma nuyoo tijaan nag danaa nuyu sama tijaaru bopp man di sama xarit di sama lépp nekk sama wet di mu ngoone siise nga xam foo ko gis gis ma sama wet macha allah kontaan nañu ñëpp daal nuyu sa sëriñ waaw waaw moom ci moom lay tëjee bala maa egg ci moom rek li may tëjee mooy santaat yàlla. bu baax a baax a baax a baax. ndax suñu saax. waaw tàmbali mu egg nag yàlla la neex. yal na yàlla barke ñaan mu nangu it yàlla la neex. Mm-hmm. ku may ku ñëw sama kër sax danaan dama bëgg nga ñaanal ma. Mm-hmm. kon man xam na ne ma. billahi xam na ne aw waaye nag ki am. Mm-hmm. mu yàlla buur buuru buuru bi nga xamante moo am. nga xam man a jaamam laa waaye ab jullit laa man Moustapha laa tudd Moustapha. sëñ Mudu Moustapha lan la tudd. waaw kon waxtu benn dab billahi dina xam naa ne Abdoulillah macha allah kon kooka war naa mën a ñaan yàlla bu ko tegee ci lu leer war naa mën a ñaan yàlla yàlla di ko wuyu kon man maa ngi sant suñu borom ba mu ma defalee tawfiix lépp lu ma ñaan may na ma ko macha lépp lu ma ñaan sama borom musuma ñaan yàlla ma gàntu ma macha allah yàlla maa ngi sant yàlla yàlla yàlla xeb di santaat bu baax a baax a baax a baax nag mm-hmm. waa Fisile Mandela gépp mm-hmm. nga xam ñoom fu ma toll maa ngi leen sant maa ngi leen gërëm ndax sama dëkkin ak ñoom dafa rafet di sant waa Tektal ci déplacé ngeen déplacé woo Ndakaaru mm-hmm. ñoo fekk sama sama kër ci mm-hmm. seen yitte yu bëri ak seen mm-hmm. xataa yi fi ñu toll nii ndax ñëpp ngi leen songandoo nag macha allah bu ngeen bu ngeen mën nangulee loolu nag mais man dañoo bëgg la fekk si la Touba ñoo dafa yow émission loolu suñu seex lu rëy la ci man bilaay yaa baax rek moo tax naa ko yëg naa ko yi nag macha allah di di la wax ne ko ne ñëw na fa macha allah na fi yàgg moo ko la ñëpp waaw sëñ Amadou Mokhtar de ko bàyyeeg man waaw waaw bi dama tax di nuyu sëñ Fallou Diop Mm-hmm. <laughs> sëñ Fall waaw sëñ Fall ñëw na perturbé bu baax <laughs> ak Soxna Fall ak ñëpp daal eh, incha allah soxna may soxna soxna may déedéet bal ma nuyu soxna maam Soda Al soxna maam Soda Al Karim waaw soxna maam Soda Fall <laughs> Al Karim maa ah. ngi nuyu soxna Bintu Sey waaw sama xarit nuyu maam Soda Al waaw di siyaare bu baax sëñ Ahmadou Mbacke Pofti Mm-hmm. di taalibe sëñ Ahmadou Mouhtar di mm-hmm. kenn ci man di xalifa pufti mm-hmm. di nit ku baax di ku yàgg sëñ Ahmadou Mouhtar di ko nuyu lu bëree bëree bëree bëri di nuyu sëñ Moustapha Faye Beyti ak sëriñ Moustapha Ndiaye moom sëñ Cheikh Ndiaye Abdourisakh di sama mag di sama xarit moom sëñ Daaru Assane Ndiaye sëñ Abdourisakh moom sëñ moo jur bàyyam di sama mag sama xarit ak mboolem sëriñ sépp daal maa ngi leen di nuyu lu bëri di leen siyaare tey jéggalu tey jéggale tey ñaanal sëriñ Ahmadul Mouhtar suñu borom may ko fanu gudd lool ak wér ba ay naalam ak ay yéenam lépp mottali ko ci barkeb Cheikhul Xadim Xadim Rasul maamam wa safrillah ali walakum wa li saadil muslimina wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf kooku mooy sëñ Moustapha Ndiaye Al Karim nekk ci Fass Mbao cité Mandela bu dee Touba ajjuma lay nekk ci jannatu di jaajëfal tamit euh, euh, kii ma solal ki ma moom mooy Cissé création nekk ca Derklé en face pharmacie Derklé si sa création borom jaal wi si création borom sacré yàlla yi si création borom sikkim bi moo may solal temps yi li may sol lépp numéro bi di 77 930 99 01 ne place ba tu Touba nax neex naxul neex nag. Touba nax neex waaw man tamit sëñ Cheikh man nga baal ma kaali tamit. Ah, ah, xaali waaw xaali. xaali xaali. xaali moo ma ñawal man tamit. xaali moo ko ñawal xaali nekk fa moom mi ngi nekk mi ngi tudd xaali mi ngi tudd. xaali Ndiaye Euh, yor euh, couture sopp alkarim sopp alkarim xaali ah, Njaay noonu waaw jaajëf jërëjëf di jaajëfal tamit euh, kii Cissé Touba nax neex daal la place bi tudd kon naxul neex nag mm-hmm. waaw moom du nax neex mukk moom day indi neex rek Cissé création di jaajëfal tamit sëriñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak ku wér di jaajëfal sëñ Abo Xalif sëñ Fallu mu yàgg fi lool te ànd ak ku wér di jaajëfal sëñ Abdou Karim Mbàkke borom makaarimal axlaax mu yàgg fi loolu te ànd ak ku wér di jaajëf Serigne Jili Fata Falilu mu yàgg fi loolu ànd ak wër ak bépp kilifa diine ñaanal nañ leen bu baax a baax yoon bu mujj ci biir émission bi numéro Serigne Moustapha Ndiaye Alkarim 77 624 23 24 77 624 23 24 a nga def beneen 77 440 02 40 77 440 02 40 sëñ mu Moustapha Ndiaye alkarim nekk ci Fass Mbao cité Mandela bu dee Touba fii ñu defee kër gi ci janatu nga fekk ko fi ajjuma incha allah nga dis ko sa soxla lu mu ci mën def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi xam tëlewul dara te mën na lépp di jaajëfal équipe technique bi ñu àndaloon Mohamed docteur Wadd bu chef courant bu Casamance bu Derklé nekkoon ci bu lakkalu nday xat yeeg ñoom ñëpp daal ak bu gàtt di jaajëfal tamit euh, Baye Massamba Diop bu Omikan ak Amsa nekk ca Derklé surtout Massamba Diop ciment mu mag bu Kër Matar Diop bu sëñ Moudou Diop ak Matar Xaar di jaajëfal tamit soxna May Diop ak Petit Sow Gaw Sow CS borom cees di jaajëfal Sayer Fall bu Espagne Celta Vigo dañuy dem foofu sax defi ji émission tegtal ñu gën ko yaatal xew dikk dañ dem émission. Espagne bu soobee yàlla Tektal teraanga yaa ngi nekk Ndiaye ni am lekkal bisimilah ma teral. <laughs> Tektal ñu gën ko yaatal xew dikk loraan dikk di jaajëfal tamit Magum Ndiaye ah. bu naa ma Ndiaye Magum waaw Magum Magum waaw di lépp al Karim. waaw Tektal ñu gën ma teral ko. bisimilah <laughs>